am na luy xew aussi ci jamono bi fi ñu toll nii ñuy toog di dëkkoonte ñoom opposition bi dama koy tudd Ousmane Sonko mi ngi toog di dëkkoonte ak président Macky Sall ñii ngi toog ku ci nekk di def nii sa dënn xam ngeen président Macky Sall ak Ousmane Sonko moomuñu Sénégal moomuñu ko président Macky dañ ko jël nekk ko yow yaay président la République du Sénégal demal nga liggéeyal mu ngi def kamtalaay kàttanam di def li mu mën nit ki nag mën naa d'accord ci lii kii bañ a d'accord ci lële mais dafa mandat dañ ko ne da ngay jot Sénégal ba 2024 bu boo fa àggee ñu ñu seetaat ba xam kan li ñuy jëlaat pour que mu dem fi mais fii ba 2024 yaa fi war a nekk kon kooku su fekkee dafa war a nekk ba 2024 kenn warut a toog ne damay taal réew mi jël pouvoir bi par force loolu doxalul démocratie parce que li fi xew le 8 mars te ngeen seen bët wii mars ñëw na jàll na mais ñii si nga xam ni ay jigéen leen seeni doom fukk ak ñeent ñoom ñoo faatu ñooñu xam ngeen ne loolu aw tiis wu metti ci ñoom la te ku ci nekk bala nga waroon xam loolu mu daloon la yow yàlla na leen ci yàlla musal mais ku sa doom bokkoon ca ña dem yow dootoo foyee problème senegal ñuy tiitalaate pour taal réew mi kon opposition mën nga ko def mais opposition lan la mooy dangay ngay ñëw génne programme bu waa ji waxee mbay mi nga ne koy ni ngay defee mbay mi baaxul man bu ma fi dikkee nii laay defee mbay mi nii laay defee njàngale mi nii laay defee napp gi bu ko defee Sénégal yi déglu la bu wootee jotee boo gën lee kii fi nekkoon li ngay def ñu jël carte yi fal la loolu mooy jàmm ci jàmm ci la réew mi mën a demee mais doo toog di dugal ci problème mu nit ñi ay problème mu xeet di ci dugal ay problème mu euh, violence ay problème mu saaga di tiitalaate boo tiitalaatee nit ki mu wàcce ay nitam nga wàcce say nit mu nekk guerre civile ci Sénégal soxlawuñu ko te gis nga am na daay yoo xam ne boo ko ba taal doo xamante noo koy fayee gis ngeen wii mars gis ngeen ñu doon daw di toj kër yi mu mujjoon na ñoom xameetuñu xoolal de xameetuñu ku bokk ak Macky Sall ku bokkut ak dañ doon toj di dem rek ak di lakk am na ñoo xam ñi tiitoon nañu parce que oto yi ñu ngi daw di dugg ci biir quartier yi di fu ñuy jaar ñuy sàmba booy yi dugg ci biir ñoom li leen intéressé mooy toj alali jàmbur sàcc alalu jàmbur xamuwuñ ko nekk ci opposition ko nekk ci opposition kon loolu nit ñëpp war nañ cee téye seenu njaboot bañ cee bokk ñuy def vote boo xam bi dañ koy jaarale ci yoon parce que violence bi képp ku koy yëkkati bis bu demee ba àgg ci yenn proportion ya di nga bëgg police ñëw di la protéger ca police mënta nekk fu nekk te Samba booy bu nekk mën naa régler compte am ci biir kii bi am na wenn wéy woo xam ne mën na ne man daal daan dancaam mii man moom laa doon wut profité ci affaire attaqué kër dancaam ñu jékki-jékki kii attaqué kër kële kii lakk kër kii kii lakk kër kële ku koy yëg réewum senegal laajul loolu réew moo xam ne mii lu bari dañ ko fee war a defar xale yi bëgg liggéey jigéen ñi bëgg liggéey nga ñëw ne da ngay taal réew ma yow dimbali woo boobu réew nañ leen waxante dëgg politique bi mën nañ koo def ku ñu neex ñu fal ku ñu neex ñu folli mais kenn waru koo def ci ay bakkan yuy tuuru moo tax man képp ànd ak man maa ngi lay demande fu ñuy waxee xuloo ak xeex bu fa taxaw del wax jàmm parce que suñu parti dañ ko tuddee alliance pour la paix et le développement mooy jàmm ak développement mooy liggéey ñun yii moo ñu tënk bokkuñu fu ñuy xeexe bokkuñu fu ñuy saaga bokkuñu fu ñuy xaste mais nag principe bi ñu am ku ñu àndal duñ la war te dañ lay woon ne ànd nañoo yow ci dëgg man munu leen a fexee fexe ba Sénégal réseaux sociaux saaga yeeg tiitalaate yeeg lu nekk ba mu tax ma bàyyi président Macky Sall te gisuma mu def ma lu ko jar munta nekk man je suis quelqu'un là buy assumer mais du ma nangu aussi injustice du ma nangu aussi ñu taal réew mi du ma ko nangu loolu ànduma ci kenn mais jàmm daal laa bëgg nañu respecte justice bi respecter assemblée nationale respecte président de la république respecter conseil constitutionnel kuy wut nguur wut ko ci ay kart mais kenn du ko wut ci doole loolu daal bëggoon naa ko wax mu leer nañ man sama parti xeexluwul bokkuma ci ay xeex jàmm laay dox ku ma mës gi mën a gis nag te nga mën a jariñ président Macky Sall man danaa jéem a dox pour yóbbu la ci moom lu ma mën a wax ci wetam pour jàmm di am dinaa ko def ci wetam mais violence kenn du ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñu ngi nii di feete le 23 juin 23 juin bii ñoom ñu ngi koy feete may man 23 juin duma ko feete parce que li tax duma ko feete 23 juin ay bakkan war doon na ci vingt 23 juin considéré wu ma ko démocratie war a toog di am un événement comme le 23 juin parce que dañu war a man di voter jàmm am di dem ay élection jàmm am xeex du am bakkan du wadd bu demee nag ba bakkan wadd ñu toog bis bi bakkan ba bakkan waddoon ñu ne nag bis boobu dañ koy feete mi ngi mel ni le 8 mars bu ñu demee ba ca kanam ñu ne nañ feete le 8 mars te fukki nit ak ñeent deeci fukki nit ak ñeent deeci nga ni da nga koy feete man duma ko nangu kooku dama koy naqarlu man di wax ne lii am na fi waratu fee am c'est ça mon comportement et te loolu laa xalaat ci 23 mars yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi koy bëgg a feete majorité bi nee nañ dañ koy feete ñoom place de la nation opposition nee nañ ñoo ngi koy feete ji ca boor stade waaye Y'en a marre nee nañ ñoo ngi koy feete ji ci booru benn terrain de basket muy am ñetti feet la ñuy def ci benn bis boo xam bii man d'accorduma ci boobu bis parce que bañ koy def maa ngi ci président Ablaye Wade ñun lañu bëggoon na wàcce ba tuur fi ay bakkan kon du ma ànd ak ñoom di feete loolu feetewuma ko tey feetewuma ko ëllëg d'accorduma ci démocratie warta ànd ak ay bakkan yu wadd 8 mars duma ko feete 23 du ma ko feete dama bëgg leer nañ loolu daal laa bëggoon wax